salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum gaa yi Égypte xanaa xamuñu ne sénégalais moo gën a koo ci monde bi ci lu yàlla bind man gaa yi ni ngeen def sala ñaaw na nag kanamu sala gii war ngeen koo jël soppali bu boîte de nuit non kanamu sala gaa ngi mel nekk boîte de nuit sarab nday lii rek sa tat tat tat yi projecteur non gaa yi du ngeen nit see xunta